محمد قديم من سماد محمد يا عبد الله وهو أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همازات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرني الحمد لله الذي بجلاله تم سالحات الحمد لله على كل حال سبحانك لا علم لنا إلا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساد لساني نوير جناني سافي أماني وزيد براي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi ak wëllëre yi ak fu waay mën a nekk ci àddina di ñu seetaan noo ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sen xarit sen soppe cheikh ousseynou sinar naar borom touba ñu and ak yeen sa suné mamsi mam ci émission bi nga xamni mo moo leen tuddee jàmm du doy fi ci prestige tv di ñaan ñi nga xamni ne mam ñoy sétane ak fu nu mëna a nekk ak di nu déglu yalla ñu yalla defal jamm yalla def jamm ci réew mi def ko ci adina sepp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nonu nak lañu xiaré mam wa régie nga muy alaaj sen dégg nga nga xamni bu ngeen déggé mbaa ngeen gis ñu ñom la dégg ñu eh, ñoom Alaaji Seen ak Akim deng mam maam Odu ak ki nga xamne mom moy mooy eh, Satine Njoon dégg nga eh, waa prestige gep deng mam ñu wax na nak ñoo ngi siyaare sunu yaakaar teeg ëllëg sëñ Muntaxa Basiir yàlla nag fi yalla yagal te wéral ko di siyaare señ amnu señ modou ben Fall señ modou Aminta Fall mam cheikh rafal non lañu ñu deng mam nga ki nga xamne moy señ sëñ Moussa Fall señ bakki Fall señ Amdi khadi Fall mam Cheikh ibrahim Fall lam baabi murdina di ko siyaaree sëñ Cheikh Ngounda Fall mu Cheikh Saliou Fall maam Cheikh Ibra Fall Lamp Babil Mouridina wal Mouridati noonu la ñu siyaaree sëñ Mbacke Fall sëñ Modou Moussa Fall maam Cheikh Ibra Fall Lamp Babil Mouridina di ko siyaaree sëñ Cheikh Ndigal Fall mu Cheikh Fall Gaayu Góor maam Cheikh Ibra Fall Lamp Babil Mouridina noonu la ñu siyaaree maam sëñ Saliou Touré di ko ñaanal yal na yàlla doon leeram dégg nga te ci barkeem dégg di siyaare sëñ Cheikh Touré mom sëñ Saliou Touré mom sëñ Saliou Mbacke mom khadim rasoul ak mbolé waa jàkk yi gépp dégg ak mboolem talib yi ak fu waay mën a nekk ci àddina si dégg ah, ñu ñaan dégg mam ah, ku tedd koku dégg aljana yalla yàlla na ak kep ko fa fekk ak koo fekk ci bak Cheikh khadim su ko defee non lañu siaré wa waa diko di ko siyaare waa cerba di ko siyaare dégg maam wunu dégg maam salsalu dabbaax ma alaaj njëgën fi ci euh, kër ma alaaj njëgën ñu siyaare dégg maam alaaj munir njëgën dégg nga ak mbooleem ñi nga xam ne ñëpp ñoo ngi waajal gàmm gi nga xam dañoo génn ci safar gi dugg ci gamu gi tay di le 20 dégg mam septembre 1900 2023 euh, dégg 1445 de ñuy ñaan yàlla nañu yàlla may ñu fekk ko ay at yu bare bare bare dégg nga tey jii nag noo ngi ànd ak ah sunu doom sunu xarit sunu soppe eh, di boroom xam-xam keppaaroo ci sëriñ Saliou Touré mu Serigne Saliou Mbacke mu Xaadimu Rasuul di taalibe tamit dégg nga moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke dégg nga di jàmbaar lool waaw ah, nga xam ne dégg nga koor gi bu ngeen seetloo man ak moom ñoo ko àndoon ba mu jeex muy Cheikh Aline mbay borom daara dénga alxuraan. de nga mom tay lañu andal àndal nak waxtane ci ki nga xamne ne fi joge di jambar bo xamne ne jambaru l'islam nga xamne ne de dégg nga maam ñàkk na ku reuy ñak na ku bax ñak na ku bari xam-xam ñak na ku ragal yalla ku bëgg Seydina Muhammad ku mëna dimbalé ku am yërmande ko xamne ne kii dégg ku mëna défaré defare défar lo xamne xam ne li dégg maam du yaqumuk de dégg maam muy kan muy sëñ salim Touré kon kooku des mois lañ fas ne waxtaane suñ ci jógee rek dinañ laalaal ci gàmmu gi ndax kenn ku ne xam na ni ñoo ngi ci weer ñoo ngi ci gàmm gi kon su ko defee incha allah bisimilahi taala damay jox sëñ Alioune Mbaye dégg nga mu daal di nuyoo su ko defee rek dénga nga ñu daal di dugg ci waxtaan wi kon Cheikh Alioune mbay kon tafaddal dal bismillahi rahmaani rahim mhm. alhamdulilahi alamin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 الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين سد لساني نوير جناني صفي أماني وزد برائي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخلبي أرشدا بك جلتي بك mbokk بك سيطان برشيش yi seetaan Prestige TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk fa ngeen mën a nekk dañu seetaan ci àdduna bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ah jiital nuyoo bi sunu kilifa gi ñu toogal muy cheikh ouseynu sinaal borom tuubaa di topp ci ginnaawam fooleem fa mu jaar nuyoo rek mhm. ñu ànd ak moom nuyoo boobee dëgg la waaye macha allah sëñ ouseynu di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mhm. ñun ci yàlla lañ jóge mhm. ci yàlla la ñuy dellu yàlla moom nga xamante ne bii ma waxoon aay ji ma wax léegi xalaxal mawta wal xayaat. Mm-hmm. bi mu ko waxee rek ne ne li yabluwakum. Mm-hmm. dama koy def ngir ma nattu leen yéen. Mm-hmm. xool ci yéen ahsanu amalan wa huwa azizul ghafuur su ma defee su ma bindee dund bind faatu ku ñëw fi man dinaa xool ci kan ci yéen moo gën a rafet jëf. yaakaar naa ki nga tudd léegi muy Cheikh Saliou Touré. waaw incha allahu rabbi ayyukum ahsanu amala. moom dana bokk ci ahsanu amala. ci ahsanu amala kon nag ñu ngi koy ñu ngi koy ziare mboolem jullit yi ci àddina bi yépp nag. Mm-hmm. waaye di sant suñu borom nga xam ni ginnaaw ñeenti fan ci ginnaaw rek. Mm-hmm. moom rek ci la dem deewaaleeg boromam dem ila rafiil axla mm-hmm. ñaan yàlla sunu borom mu fayal ñu ko. waaye bàyyi seenu loolu it. dafa mel ni yoon la woo xam ne yàlla. mom da ci jaarale jaamam ñep deug la wa wa yon la muy jaarale jaamam ndax da xone falan tajli lan tajid tabtila arfan waxe walan tajli li sunnatillaahi taxwila yàlla aw yonam ak aw tëral la mom kenn mënu ko soppi waye kenn mënu ci am ben pexe deug la moo ñëw doogalam te mo waxoon ni kullu nafsin zaiqatul mawt wallahi deug la wa waaw dafa waxone wala nablukum bi sharri wal xayri fitna wa ilayna turjaun dina len natto ci lu neex dina len nattu ci lu nakari waye yeen ñepp ci man ngeen di del siwaat li nak dogal suñu borom la ñu nang ko bu baax a baax kaw suuf gi mo wax ni yabqa wajhu rabbika zal jalaali wal ikram koku rek mo fi dess may yalla kon nak am nañu metit am nañu mbettel am nañu tiss waye duñ ko tisso dañuy nangu dogalu borom bi rek amna baye bàyyi seenu ñu ngi la koy ziare yeen kilifa yi nga xamni bima ñewon fi ci 80 yéen a ko tatagaloon ànd ak moom liggéey bi mu rafet yéen moom kenn yellul ci ziyaare ko yéen ku dul yéen kon nag yàlla na ko yàlla fayal xam naa nuyoo bàggoo rek incha allah ba ñu del siwaat bàyyi seenu tubaarkalla septembre la fi ñëwoon dégg ci le 9 septembre 1980 mu nekkoon ci weeru koor nga xam ne dégg ci leen jàng fulk bi waaye keroog nga xam ne moom moo ko doon jàng jàkk ji tamit dégg maam moo daan noonu ba pare jiite bi mhm, dama wax ne jàmbaar jooju dégg maam ñi ko daroon te jiitu laa bëgg a tudd rek ñu ñaanal mhm. papa Dioum waaye Mori Dioum yàlla doon leeral mhm. dégg ku mel ni ki nga xam ne dégg nga maam Baba Thiam. dégg mhm. dégg nga mhm. euh, ak ñeneen. Mouride waaw Mouride Cissé. Mouride kenn ku ne dégg nga moom kenn la woon. Mhm. dégg nga moom it yàlla na yàlla doon leeram. Cheikh Anne. sëñ Cheikh Anne mi nga xam ne dégg nga maam sëñ Saliou Mbacke moo ko jàngal ba wàcc ko jël ko jox ko nag dégg maam sëñ Saliou Touré. Baye Abdou Gueye. waaw ah. Baye Abdou Gueye Mouride waaw Baye Abdou Gueye xool kilifa yooyu nga xam ne di ma yaa may fàttali di ma ñun ñëpp xam nga day mel ni rek su ma tuddee xëy na ñaar day mel ni waaye nag su ma sañoon ñëpp laa tudd. ndeysaan dëgg la dégg man ak kan am na ci ñoo xam ne di ma ba ci euh, Abdourahman nga xam ne di nga taalibeem la woon. Mm-hmm. te baayam moom moo nekkoon di maam ki nga xam ne moom moo fi toogaloon mboolem xaajale yi. ndeysaan xaajal. Mm-hmm. dégg nga sunu baay bu baax boobu dégg ma ne kon su ko defee ñii nga xam ne di ma ñoo fi nekk. ñoo ngi ñaan yàlla nañu fi gën a yàgg. amiin yaa dégg nga di ñaan seen Cheikh Touré yéen bi yàlla na woyof ci moom dégg nga toog rakkam yi nga xam ne ñoom la àndal dégg nga te mu ànd ak ñoom ñu fas ànd ci liggéey bi dégg nga ñëpp nag ñoo ngi déglu ndigal seen ñu tax a dëgg yàlla dégg nga waaye daal li ñu wax mooy ku mel ni ñoom Jalle Pouy ñoom Aliou Thiam ñoom dégg nga maam Aliou Nguer Diop dégg ak Seydou ñu baax ñooñu nga xam ne ñoom ñëpp di maam ci liggéey bi rek di maam la ñu nekk kon ñoom tamit ñoo ngi ñaan yàlla leen fi yàlla yàggal te wéral leen kon su ko defee rek xam naa ne damay ñëw sëñ Aline Mbaye mhm. rek mu wax ci li nga xam ne di maam ndax sëñ Sall Touré biñ ko fi indi kenn indiwu ko fi ngir mu doon élément dañ ko fay indi ngir mu àggale ñu ci yàlla mhm. dégg nga kon kooku di maam bëgg naa incha allah Aline dana ci wax lu leer ñu ngi ko dégg kon sëñ jërëjëf Baye Seynou xam naa ñu delluwaat rek eh, waxam bu jullit yi ni leen ah Serigne Saliou lii xi xew kenn ku ne rek delluwaat ci suñu borom dana ci am solo. ndax ki gën gi mbindéef lii xew-xew na ci moom. Cheikh Ahmadou Bamba mi yaakaar yonent baak saxaabaam ya yonent Sëñ Tuubaa ak magam ña doomam yu teddee tey jëpp. ñanga ca wetu sëñ saliw Touré motax gëm dogal yalla yi sëñ bi dafa wax ni ci la rawe ñepp nak marsiya xamna ni ñepp dinañ ko def dafa am ko lon kilifa gu bax waye marsiya ba dafa dalal xel hmm. dafa waxone bismil ilahi yéen muriti senegal hmm. julit alin Mbaye len di jall alhamdullilah ñu sante yalla hmm. ci ndogalam ak i non la dunya wara kon la te jar la andal lii mënu def moo di jikkam jëm àndal moo nu waroon waroon yu tiise wom sasin mm-hmm. dellu jëfaat jëfam ju sew ja de sasin moo nu waraat ca xaf sasin ku bon la amut yeneen jëm xanaab jaahil la li mu defaat ci tasasin moo tiital mboolem julliti kii jëfam yu baaxul bismil ilaahi yéen julliti àddina mm-hmm. maa ngi leen di jaale koo xam ni jikkoom ja fàddu na te di ko jaal waa Sénégal jullit yi ci mboole seen rawati naag murit yi waaye ki jël si doomi Abdullahi dellu si jël xaadima rasulillahi jëlaat xalifatil xadimil Moustapha ak Serigne Fallou Mbacke Baye Moustapha rabul waraal mooy daggal te te lu mu jublu lool da daal di sotti Baye Seyno sunu kilifa gi eggale nit ci yàlla ci 1980 lu jiitu mu koy def yàlla sunu borom dafa déggal borom xam-xam dañoo wax ne isa aradallahu amran hayya alahul asbaab yàlla su bëggee dara da koy wutal sabab mu feeñ fii ci kër maa jub ture ci mbaakool 1934 feeña ci suñu maam Cheikh Ahmadou Dame Koumba Touré ak soxna Anta Xumma keroog bi mu feeñee waa mm-hmm. waajuram maam Ahmadou Dame Koumba Touré moom daa waxoon ni sama doom ji ku dul suñ Tuubaa du ko tudd sëñ Saliou ñu jërëñ ca dëkk ba tudde ko boppam jàll kon sëñ Tuubaa ko tudd moom juróom-ñaari at dal jàng waa waajuram di ko jàngal ba wax nañ ni mu toll ci fan nabas wa huwa saqim jooju alquran di wax surtout safati sëñ saaliw del ci wax dekk ba jël ko yob ko keur sëñ mor mbay siise mu tel moko alquran bindu ko ko soobu xam-xam jang ci ñinga xam ne ku jang ci ñom si sëñ tubaa nga jang sëñ mouhamadou lami job dagana sëñ mor dem am xam-xam téré la xay top topp ñam ba sëriñ saaliw mbacké nekk ci ginnam diko liggéeyal nga xam ni moom sëñ bi lim daan deflu moom la moom laa daan defloo sëñ Saliou Touré di ko taxaw ba fan fii ci got mm-hmm. mu nekk fi di liggéeyal sëñ saa Saliou ba xëy bis sëñ Abdou Lahad ni Thiès day day sëñ sëriñ Touba mm-hmm. jàkkay murit gi yegg mm-hmm. ñu soxla imaam soxla ko yeggale nit ñi ci yàlla wax nañ ñi sëñ Saliou Touré bi ñuy tànn imaamatu gi sëñ Abdou Khadre moo ko bëggoon nga xam ne bi ko sëñ laajee dane ko am na ku dëkk kër Maajob Touré doom ci sëñ Ahmadou Daam Kumba ture kooku de bu demee Thiès dana baax sëñ Abdou Lahad ne ko ah comme jublu na rek jublu na la nga xam ne daa wax ne sëñ Tuubaa sax moo ko tànn ñu laaj ko ñu laaj ko sëñ Saaliw mu joxe ko mu daal di ñëw fii ci Thiès daana wax ne moom sëriñ Saaliw Touré yéen Thiès tànnu leen ma tànnu mu sama boobu sëñ Tuubaa ma leen tànnal waaw na kooku nag moo fi ñëw 1980 ba ren muy 43 ans ndeysaan la mu waxoon mission mat na ndax fi ne Cees koo gis rek am na yitte ci yàlla am na yitte ci Serigne Touba ngor rek ay nekk ci moom te grâce à lui Serigne Saliou Touré kon nag yàlla na na ko yàlla fayal bàyyi seeni kooku jëmm jooju mel na ni Cees mm. këru diine goo fi dem rek tey jàkkay murit mboolem këru diine yi ñu ngi ñëw ci jàkkay murit ndax lu tax mooy bi ñu ko fiy tànn dañoo bëggoon koo xam ne dina fi nekkal Sëñ Touba naam Hmm. waaye dana fi nekk lislaam gépp mu tàllal loxo ñëpp ba ñëpp wuy si ko loolu yaakaar naa liggéey la boo xamante ne bi kurul woon ak moom it mënoo loola te booba Cees jaxasoo na lool yéen xamoon ngeen ci dara ndax yéen yéen a àndoon ak moom liggéey bi waaw xam naa loolu moom <laughs> masha Allah mhm. nga xam ne euh, sëñ Aliou mhm. euh, jàmbaar bi mag nga wax ndeysaan ndeysaan boo xam ne bii fu doom soxna jaar jaar na dëgg la dégg nga lu doom a am am na ko. dëgg la dégg nga bu dee xam-xam nee naa la ñi doon jàng ba kenn mënut leen a jàngal si mhm. nga ñi nga xam Lo Dagana di nga xam ne ñooñu nekk ak ñoom. sëñ sëñ sëñ Modou Deme. sëñ Modou Deme. ndeysaan dégg nga ah xam nga ñooñu jàmbaar yi fàtte la ñooñu dégg maam li yàlla def ci ñoom. Mhm. dégg loolu yàlla def nag si saa yu nii. dégg nga mu mat ko sëkk nag mu ragal yàlla lool dégg nga ba pare na ma ne la mu defar ay góor yàlla yoo xam ne yi dégg nga tubaarkal la xam naa yow di nga ci ñëw ndax nit ñi dañoo jàpp ne dégg nga ndax dañoo wax ne sëñ Saliou Touré dañ koo indi pour mu àggale nit ñi si waaye indiwuñ ko ngir dégg ma mu doon élimaan kese mm-hmm. waaw ma nag Euh, am na ñoo xam ne ñi di ma àgg nañ ci yàlla te xamul ne ñoo àgg nañ ci yàlla te seen Saliou Touré moo tax ñu àgg ci yàlla am na ñoo xam ne loolu bëgg naa sax nga leeral ko ñoo xam ne dañoo def ne pour àgg ci yàlla foog nga ne jaax jaxaraan ñoo yàgg yàlla ci <laughs> xasida yi di ma ak seen seen Tuubaa seen Saliou Touré li mu def di ma am ba ñuy jàng xasida di ko taxaw indi nu furku bi indi nu yooyu yëpp di ma am ñuy jàng tey jii di ma am bari na si ñoo xam ne àgg nañ ci yàlla te xamagul ne àgg nañ ci xamuñ ci loolu dëgg la waaw waaw ba bàyyi seenu gis nga yegg ci yàlla. moo wax ni yeggale gi ci yàlla du jàpp sa loxo di naaw ak yow. waaw wala ni la yàllaa ngi nii. waaw waaye nee loola. bi muy ñëw ci sees xaside yi sëñ Tuubaa yi. waaw dimbali ko. loolu nag dafa fekk. loolu mission sëñ Tuubaa la jël. ndax sëñ Tuubaa daa waxoon ne maa ngi ñaan yàlla. Mm-hmm. ra rajawtu inqiyaadu xisbi ilallaahi waye bi xawma bi xatti da daa ni ne ngi ñaan yalla sama kurel bepp wom matu jëm ci yalla señ ci wax li de waye jaare ko ci sama mbind mi señ sa tur nak bu taxawé wax ni ñaan na yalla mm-hmm. ah señ tuba bu waxé dama ñaan yalla sama njabot gep mm-hmm. sama nit sama kurel bepp woo matu jëm ci yalla ci jaare ko sama mbind mi mu ñew fi ci Thiès ni yegalé murit ci yalla bañ koy wax xawma lu mu doon waaye ndeke yàlla dina ko jaar ci xaside yi xaside yi nga xam ne moom bi mu ñëwee ah. barki Serigne tubaab bu ñuy wax jànkatu xasaayit bu mag neel sëñ Saliou Touré ndax fulkul masoon moom xaside yépp moo ni ci biir su weeru koor jotee mu ñëw taxaw di ko jàng ca kaw waaw ah dafa am kilifa gu baax gu wax ni mhm. Serigne Saliou Touré nii mu mel. Hmm. maanaam fekk ko ci Thiès. da ko hmm. indaale cees dëgg la de da ko indaale li muy ne ci got ne ci daara ji laan def bu ñëpp tëddee mu laxasaay du yëkkate xasida yi sëñ Tuubaa yi. dëgg la. kon moom xam na ne xasida doon na jaaruwaay boo xam ne ku ci jaar da nga yegg ci yàlla. wallaay dëgg la. cey neena jàng na jës bu. Hmm. ba jékki-jékki ni gees gis rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikhul Khadim toog. allahu akbar. nee na mu jël ci néeg bi lu mu jël rek génne. ndax ñoo ñu bañ a gis loo xam ne xëy na du leen neex ak yooyu. waaw ak di joxe àddiya. ba yàgg gisatu leen. loolu nag mel na ni. Hmm. bi mu xamee ni loolu day yëggale ci yàlla. Hmm. moo tax bi mu ñëwee cee samp fi. xasida day nit ñi ñëw ci weeru koor wu tedd woowu. waaw di déglu baatam bu tedd boobee. waaw muy jàng fulkul masoon. allahu akbar miftaaxul munaawal wusul. waaw di ko jàng di jàng xas di yooyu nit ñi jàngit moom mu def jeexital ci moom. waaw ba tey déglu googu ngay déglu. di dugg sa xol ba mu taxaw waat ni man de Cees. yaakaaruma ni kenn dina fi jóge dem dem dem safar ëllëg. dëgg la egg ci yàlla am na ñu ko xam am na ñu ko xamut. dëgg la waaw waaw. bay wala da waxon ni yegg na ci yalla wali wala waxon bay wala ko jage wallahi deug la de way bay wala bo xoli dina ra xamni ki nitu yalla la deug la mag ñu ko top yeen ñi ku leen xol xamni ay nit yalla ngeen wallahi deug la ci waaw ku leen xol señ sawalo tele ku yalla def nga ran deglu ak kepara ay waxam rek dafa melni wax yu est ce faaw da ñun ñi doon gone sax mujjé ñew ci génération waaw am nañ ci mar yàlla goo xam ne rek moo ñu ko may kon li defar ci Thiès defar loolu yamul sax ci Thiès àddina kay damaa toog di waxtaan nit woote. waaw ni ma dafa am moom xaadar la. waaw tam xarit dafa jot. reer tam xarit xaw a jafe ci moom la xam nga nitu yàlla. waaw mën naa am wilaaya. dëgg la waaye mën naa ba a yor dara it nag. waaw ma dëgg la de. nee na mu tudd guddi sëñ Tuubaa feeñu ko ne demal ci sa Aliou Touré innahu muridun saadiqun boo fa demee da am reer. allahu akbar <laughs> dëgg la mu ñëw ci jàkkay murid. waaw. ne ko sëñ Tuubaa de moo ma feeñu ni ma damaa bëggub reer mu ma boo demee sëñ Saliou Touré murid saadeex la dana la jox ab reer allah akbar sëñ Saliou Touré ko yow tey da nga reer ba am sax lu jàll ab reer wallaay dëgg la bi billaay barke borom Tuubaa kooku dellu sëñ Saliou Touré jox ko lu weesu loolu tamxarit waaw mu dellusiwaat gisaat sëñ waa mu ne ko lu ma la waxoon nee naa la kooku indohoo muridun sax <laughs> kooku nag mbokk yi moom la ñu ñàkk <laughs> mu doon lu métte métti loo xam ne ñu ngi dangu nangu dogalu borom bi di borom mu fayal ñu ko amin ñu amin yaa yàlla fayal ñu ko amin sëñ Aline mhm. euh, dama wax ne moom fii la toog ci jàkkay murit mu daal di ne bu ëllëgee yowmal xiyaam bu yàlla teewee yonent bi teew sëñ Tuubaa teew maam Seex Rafal teew ma teew. Mhm. nee na bu keroogee yàlla du laaj kenn waa Cees ku dul man. dëgg la te mu teg ci ne bu ëllëgee dégg maam kenn ci waa Cees bu naree dem safara moom mooy dem safara. kon kooku garanti na dégg maam. Ah, te fi mu ko teg fu wér la. Mhm. dégg muy koo xam ne kii dégg nga dara waaye xoolal keroog Ibra ci sarax si dégg maam. njàngin wi mu sëñ Saliou doon jànge noonu la Ibra doon jànge waaw waaye am na koo xam ne kii taalibe sëñ Saliou Touré la ku bëgg sëñ Saliou Touré la kuy roy njàngum sëñ Saliou bu doon jàng fii mu ne nii feek ñëw ba tiim ko doo xam ndax siñ Saliou la wala déet dégg nga mooy Ousseynou Ndiaye mm-hmm. Ousseynou Diop rakk Yoro Diop waaw sama xarit dégg ma Ousseynou Diop mm-hmm. daa bëgg sëñ Saliou Touré Yoro moom kenn waxaale ko waaw ndax moom kii la kon noonu lañuy ñuy siyaare ah mboole mag ñi nga xam ne dégg mu ñoo ànd si Touré te na fi dégg mu ñoom ñëpp dégg mu ñu jiitu yàlla na yàlla dolli seen leer dégg nga waaye si Touré day dégg nga ma ne la xoolal këri diine yëpp a ñëw. dëgg la. keroog Baye Cheikh Yirim Ndumbaan dégg maam ñëw na wax fa wax rafet. seede fa. Mhm. dégg nga soo seetee dégg maam. waa laayeen yi dégg maam ñëw nañu seede fa soo seetee waa ba ñëw nañ fa dégg maam seede fa te waa ba fii la leen teeru dégg maam keroog ba ñu ñëw di ko siyaar si dégg maam keroog ñun ñëpp ñoo fa nekkoon dégg nga mhm. ah mu rafet lool seen xalifa bi maam ñoom ñu ñëw fi siyaare ko siyaar boo xam ne bi keroog lu mu mën nga def na ko waa ba baax lool waa Canaba yi tamit ñooy ñoo xam ne nii ñoom la waa Touba di dund rek la ñu dund foofa waaw ñoom bañ na ko foofu dégg nga maam série a la doxal. dégg nga bi si des dégg mooy ñi nga xam ne ñi dégg maam ah, ñoom tamit dara dégg maam ñoru leen lu dul dégg maam diine islaam dégg nga ñu bàyyi seen yëpp daal di ñëw dégg muy kan soo seetee si Sidi Maxtaar Kunta dégg maam jóge na Njaasaan ñëw dëgg la représenté waa Njaasaan hmm. waa Canaba nee naa tudd naa leen sax ñoom ma dikkee ak ñoo ñëpp waaye Nasir Dieng di suñu jarbaat dégg maam ak baaxam ak dégg maam nga xam ne muy taalibi sëñ Moutala Mbàkke gis ngeen taxawaayam dégg maam hmm. ah ki nga xam ne mooy sëñ Sidi Mbàkke mu Cheikh Abdoulahat Mbàkke dégg ñëw na sëñ Tàkko Mbàkke dégg moom Cheikh Moutala Mbàkke dégg maam ñëw na sëñ hmm. ma ne la ak ki nga xam ne kii waa kër sëñ Modou Faty Khary dégg nga sëñ Murtala Mbàkke dégg maam dégg nga ñooñu kenn ku ci nekk dégg maam ñëw nga waaye boo xoolee kilifa yi nga xam ne dégg maam kilifa aada yi dégg nga xoole ku mel ni eh, Pape Doumbouya mm-hmm. ak baaxam nga xam ne tey jii ba ñuy tàmbali dégg maam fulku bi booba Pape Doumbouya dégg maam waxuma la dara benn caméra lañ yore woon waaye dañ koy couvrir ba mu jeex at mu le ba tey jii dégg maam yokk nañu ba gis ko dégg ñuy naan mu gën a yokkuwaat waaye ñëw na ak délégation bu rëy a rëy dégg maam ànd kook ñoom Khalifa Fall dégg nga ànd kook dégg maam Mbeng ñoom ñëpp dégg maam ñu ñëw keroog waaye àndaat itamit fekk fa jàmbaat ju mag dégg maam monsieur muy Ablaye Dieye waaw Ablaye Dieye nit ku baax la mm-hmm. ku mën social la jamono yee rek dégg maam ah consultation gratuite dégg maam la defal dégg maam waa dëkk bi ñetti fan dégg nga waaye mu jël dégg maa téeméer ak juróom fukki xale dégg maa dugal leen néegu góor. xoolal loolu dégg nga yemu ci dégg maa waaye keroog bi mu ñëwee dégg maam teraanga la def dégg maam ñëw na fa ñëwaat fa. Mhm. dégg nga ki nga xam ne mooy docteur Ndiaye. moo fa jiitu. Mhm. dégg nga docteur nit ku baax la. dëgg la docteur Ndiaye nit ku ku ku yëg doomu aadama la. ku baax la du ma géwélam damay wax rek te yàlla tax barki Seydina Muhammad ndax man mi tawat naa ñëw ci moom mu defal ma rajo laaj ma 15. te day yëkkati àllam di ko jox fii gis naa tamit képp kuy soobale dégg maam ci diine islaam dégg mu ñëw dëbb la la dégg maam moom yëkkati àllam jox la du alalu keneen alalam lay yëkkati di ko jox. Mm-hmm. ba pare woyof tooy ak ñi muy àndal. Mm-hmm. dégg nga kon. dañu koy ak ñeneen ñoo xam ne de maam. keroog de waaw sëñ moor gay sopp na bi. waaw sëñ Mor Gueye sopp na bi. daa ñëw indi indi teraangaam ju bari. ju bari. ba pare jël jëmmam. waaw del siwaat encore dégg maam. Ah, waaw dégg nga sëñ Modou Kara Noreyni moom lu ko jiitu. waaw daa jékki-jékki rek bis sëñ Mor Gueye sopp na bi waaw. daane sëñ Saliou Touré dama koy ziare si nga xam daa xëy benn bis rek daw dugg ci biir kër ga waaw ziare sëñ Saliou Touré ngir jëmmi sunu ba nga xam ne yàlla moo ko defal ndimbal ndimbal dëgg la keroog bi mu ñëwee moom sëñ Xaadim si waaw sëñ Xaadim sama doom taxawaay bu rafet indi fa teraanga ceeb waaw nag ndox lu ne rek mu indi waaw waaye ba pare jël jëmmam jooju indi ko foofu toog ci biir jàkka mooy wallaay moom it macha allah ci jëf ju rafet jooju ñu ngi ko ciy sant ci turu sëñ Cheikh mu la ñoom ñoom ñoom euh, dañoo dañoo dañoo baax Thiès dégg maam ay nit ñu baax a fi ne. dégg maam soo xoolee dégg maam ñoo ñëpp kenn ku nekk dégg maam ah, sama xol mi xëy na moom mooy xaw a kii sax di fat waaye dama laa wax ne ñi fi ñëw. kenn xamul dégg nga boo xoolee dégg nga daayira mooy bu naa fi ma daay saafi dégg nga njaga teggin dégg nga ànd naag dégg nga manjaay ngom dégg nga quatre cent dégg nga maam ah chargé dégg maam oto lañ chargé ba mu fees ak ndox dégg nga ki nga xam ne mooy soxna Joor Faal mhm. ndeysaan ku baax jor Fall dégg maam yónnee na fa juróom-ñeenti baas yónnee fa lu ëpp ñetti téeméeri chaise waaye yónnee na fa ay fauteuil boole ci mm-hmm. dégg nga Dior Fall moom it dégg maam dañuy waxante rek waaye nit ku baax a noonu koo xam ne kii dégg maam diini islam fu ñu xool ba ci ki nga xam ne kii dégg maam mooy Iran ah. bisam bu jotee dégg maam da ciy def dégg maam ak mm-hmm. ñeneen ñeneen mm-hmm. kon Dior Fall day yokku ba yëg ko kon noo ngi koy sant bu baax a baax ñoom ñëpp dégg maam képp koo xam ne kii dégg maam euh, ak ki nga xam ne kii dégg maam mooy Babacar euh, euh, ku ñuy wax Babacar Euh, borom diis diisoo Babacar euh, tur bi laa fàtte waaye moom itamit ñëw na ak soxna maam jaar ak ñoom ñëpp dégg nga maam ah keroog ci bis ba dégg nga maam ah ñu taxaw taxawaay bu am solo dégg lañu man ci seen kàttan dégg nga maam ñu joxe ko fa dégg nga ñoom ñëpp dégg nga maam kon damaa wax ne lu waay kii nga xam ne dégg nga maam mooy Alwali Dieng Deng ma ah sherif Alwali Dieng dégg nga seen taxawaay dégg nga mook Cheikh Abdoulaat Seck mu ñàkk sikk dégg nga maam seen taxawaay rafet nyom nyep wah ñoom ñëpp dema wah maam ñoom Aali Caam ñoom ñëpp wax dëgg yàlla damaa wax ne jàkkee murit tubaarkàlla ñi nga ak ki nga dégg ak ñi ci des ñoom ñëpp dégg ma dañ leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm xam naa ne seen sëriñ lañ defal waaye nag seen bopp lañu defal du dëgg mhm. Thiès moom kenn desul ñi nga xam ne mooy làmp caam tamit ñoom tamit ci wàllu dégg maam bernde yi waañ weeg yooyu ak mbisaan mhm. sow mi nga xam ne sow mu ñàkk euh, bu amul coow mhm. nga xam ne dégg liggéey rek lay def mbisaan man ak moom dégg nga danoo yàgg lool dégg maam muy lawbe may naar waaye ku baax la mbisaan dégg maam liggéey bi taxawaayam rafet na lool ak mboolem ñu mu àndal dégg nga kon noonu la ñu santee waa ersan waa taax ko waa jàmm gën sëñ Moustapha mi nga xam ne moom mooy jëwriñ dégg maam daayira jàmm gën itamit dégg maam keroog taxaw na waaye dégg maam seen taxawaay dégg nga euh, waa kër Joosi Jaañ ñoom ñëpp dégg maam na faal dégg maam kenn desut Deng, man na faal ñoo am di Touba Ndiaye deng ma am ñom ah, ñom ñoom ñëpp eh, eh, daal. xam naa ah, Aboubacar Diop voilà Aboubacar Diop. dégg nga ah, wax deug yalla deng ma am kenn desul ñom taala pen ak ñom ñepp dégg ma am ak eh, ki xollu deng nga ñoom ñëpp nañu. kon su ko defee ñun daal réew mi waxuma la dara waaye waa asaabul jannati faal gabon mi nga xam ne moo ko jiite dégg ànd ko ñoom Njaga Sàll ak ñoom ñëpp ñoom tamit seen taxawaay rafet na dégg maam ñoo ngi leen di sant di sant ñëpp bàyyiwunu kenn kon su ko defee dañu dellu si waat rek dégg maam ci ki nga xam ne kii mooy sëñ Aline hmm. dégg nga nga am loolu indilaat su ko defee rek incha allah ci kanam tuuti dégg maam ñu mën a duggaat dégg maam ci li nga xam ne mooy gàmm gi rek rabil awal du dëgg ah, waaw kay kon bismillah tafaddal waaw xam naa émission tey jaamul doy rek. waaw dafa tëddoo ci xuqal bu kaaw. ala saadaati ala saadaati wallaay dëgg la wallaay dëgg la. tabaki araadi alayhim kasamawaati wallaay dëgg la ci. tey dañoo ñëw rek di jooy sang yi nga xam ne dañu fee jóge woon. nga xam ne suuf ni ñu def nii nii la suuf di def. dëgg la asamaan si def. allahu akbar sëñ bi daa waxoon ne abaki alayhim Mm-hmm. wa arjo fil bu kaay xadan moo tax suñ émission bi mm-hmm. dañ ciy yaakaar ëllëg redwaanu man fii xaabu bil xalaat ah, yàlla nañ yàlla defal wala amiin yaa rabbal aalamiin fàttaliku nit ku baax ku mel ne Sëriñ Saliou Touré mm-hmm. loola yaakaar naa ni ngërëmal yàlla rek nga ci amee dëgg la yaa lëh fa nafsi ala faqadil akaabiri man xaabu li rabbin daahum bil uluwaati cey moo tax jooy tiis dinañ jooy nit yàlla yi nga xam ne dañoo dem waaye fàdd nañ waaye yàlla sunu borom moo leen woo waaye ci ay maqaama ah, kawe lañ kawe allahu akbar saa yu tuddee ne dem tey gisee sëñ ci waa waaw noo desee njàqare waaw waaye moom mbégte mu rëy rëy lay bu rëy ak wallaay tabki layaali alayhim wa an maan dëggal ni guddi yi dañ leen di jooy weeri di leen jooy mislal ashi ah. bil wajjin wal xuduwaat suba ngoon sax jooy na sëñ di jooy ndeysaan ndeysaan kaanu ibadan bi taanti rabbi moom na wakkaana jàllum rabban bi minnaat <laughs> mu wax nag ne lii ñuy def nii ni ñu jëlee waxtaan wi di waxtaan ci Serigne Saliou Touré mhm. loola asamaan da koy def mhm. suuf da koy def mhm. guddi yi da koy def ndax lan mooy nitu yàlla waaw est-ce que waaye seen daa am ko wax ne Serigne Saliou Touré day ba yomal xiyaamee bu ko fa nit ëppalee dara coobalee sunu borom lay doon dëgg la koo xam ne jamono ji ma xam ci la feeñ ba nu fi noppee jóge waaw laxasaay mësta teg ko ci yoonu yàlla mës la dégg ci kàddu mu ne sonn naa waaye li ma sant yàlla mooy coono bu mu musa am lislaam a tax ma sonn ko. certainement. yàlla na ko yàlla fayal. sëñ amin amin yàlla na ko yàlla fayal. xam nga euh, li ma lay wax ci taxawaayam ak matam. Mhm. ak li sëñ Tuubaa di wax ne akrimu dayfakum izaa ataakum. su ngeen amee gan na ngeen ko teral ni mu mënee teral doomu aadama. wallaay dëgg la Cheikh Abdou Aziz Dabaax. Mhm. keroog bi mu wax ni dafay ñëw dégg nga jullee ndeg moom tàkkusaan. Mhm. dégg keroog. daf leen wax ne ñun ñëpp la la taxawal ne damay am gan damaa bëgg dégg teral ko keroog mis yi xar yi nu wutoon dégg maam def ko ay mis yeeg yëpp seen Saliou Touré dafa takk ndiggam dégg maam def tànk neen dégg nga bi ñu xamee ne dégg maam li ñu war a togg yëpp defar nañ ko ba pare mu ne fruits yi ñu dem jënd dégg maam fruits yi mm. pomme orange banana lépp dara manqué wut dégg nga mu ne leen loolu yëpp mat na waaye am na lu des. ñu ne lan mu ne mu ne leen addee ji ñu leen jox. allahu akbar <laughs> sëñ Saliou Touré mooy kenn. xoolal keroog dégg nga lañ dajalee dégg maam du ko wax. waaye li ñu sëñ Saliou Touré wax mooy dégg maam bañ jëlee taabal yi tegal leen ñoom ñëpp mu ne ñun bu ci kenn ñam dara. incha <laughs> sëñ Saliou boo baax. keroog teraanga yi mag ñi dañoo lekk ñoom ñëpp ba suur mu des. bi mu desee dégg nga dafa jël yëpp dégg maam daal di koy dugalaat dégg nga def ci ay mbuus dugal leen ko seeni oso ñu yóbbaale ko mm-hmm. waaw te xoolal li nga xam ne dégg maam ki ko wax ne dégg nga mooy wax nañ ne keroog bi mu ñëw def ko ne woon dégg maam dana day julli si tàkkusaan waaw fa laa jullee tàkkusaan waaw fa laa mm-hmm. waaye ba muy ñëw nee na leer na ko ne dégg maam Sëñ Saliou Touré julleegul tàkkusaan ndax xam naa ne man lay xaar wallaay dëgg la dégg nga xoolal kooku kon bis bismillah waaw xam nga Sëñ Saliou Touré waaw dafa dafa yàlla woon sëñ Bam Abdul Aziz Si mi nga wax waaw kay waxoon ko loo xam ne moom tey loolu waaw moo koy añe tey waaw est-ce que da ko waxoon ne ko xas di ko gudd da ko waxoon ne ko xaddamta tariqatal xutbi min bayti haashimin aani mhm. abal abaasi man saada bil wirdi cey dëggal ma lii. yow Abdou Aziz tey dem nga. ci sa borom. waaw waaye liggéeyal nga yoonu xutbu ba muy Cheikh Ahmada Tidiane Chérif. waaw moom mi nga xam ne moo sang werdu Tidiane ya. cey ni ko xamalta abaaral xilaafatu saabiran yow day coonoy xilaafa geeg muñ muñ gu rëy def nga ko. dëgg la 40 ans zéro fët dañ koy wax. waaye moom tamit 43 ans zéro fët. waaw wallaay dëgg la. mu ne ko nag kon nag fa nim mustariixan xas salimtun minal maydi yow demal nga noppolu ji nelaw nelawal waaw te noppolu est-ce ndax lan moy yow day da nga muccu da nga muccu daa mucc moom tey lool lool rek la moko defal liggeel nga seigne touba seigne salim ture loo xam mm-hmm. ah yow tamit day nim mustariha deug la noppolu touré bal la yalla yalla fayal ñu la parce que dama ko ni ci li ngeen ni ci ma abdou rek waaw xam nga mm-hmm. pour wax la ni sax deug mam euh, seigne sal touré matam ak tarangam ak yëgam gi mu yëg doomu aadama. dégg nga sunu gouverneur bi fi nekkoon mooy Amsatou Sall. Mhm. xam nga waajuram Mbàkke Mbàkke la. keroog bi yaay waajuram wàccee liggéey dégg nga Serigne Sall Touré dégg maam nag wi mu jënd ci jamono boobu ëpp na huit cent mille. nag woo xam ne fukki pël ak juróom ñoo ko indi. ci gouvernance. ndax nag wa na mu toll. ak dégg maam foo toll de boo toll ci buntu gouvernance da ngay dégg ni muy fuftandikoo dégg nga barke Cheikh Khadim hmm. te keroog itamit ma Abdou war faa ñëw waaye dama ne sëñ Saliou Touré bi mu jëndee bi mu wutee nag wow indi ko sëñ Saliou ñang mi nga xam ne dégg maam mooy jëwriñu dégg nga Touba Jaxaaw dégg nga keroog man moo ma woo ne ma dañoo nag wii nga xam ne moom la sëñ Saliou Touré wutal dégg maam gouverneur yow laa bëgg ngeen taxaw defar ko. xoolal Saalak Fall keroog laa woo ak Cheikh Ndiaye Sindidi ak Kulu Saari ñu nekk ñeent bañ tolloo ca buntu ba laa wax ne ci la nag wi fuuf te dégg maam nag wi nee naal fukki pël ak juróom ñoo ko ñoo ko indi. ndax ni mu mel. Mhm. maa leen kii mala rek la. Mhm. nu ma def damaa ñëw man leen xaale ma yéeg ci garab gi jël buum gi daal koy yoor ba pare daal di lonk baatu nag wi daal di koy aj ca kaw ma wàcc man leen dégg maam na ñu daal di jël benn tànku ndeyjoor bi daal ci def buum ak tànku càmmooñ bi ca kanam def ci buum dégg maam ma ma daal di koy yolomal ma ne ma ne ma ne xëcc leen fii nu xëcc ñu xëcc fële dégg maam nag bi ne det ci suuf moo wëlbati ko dégg mu jaaxaan ma war koo reen ñu ne neen xaar gouverneur est ma génn daje gouverneur dégg nga ma ne ko ma ne ko nag wi day la ñu bëgg a rey mu ne ma waa ah, xaal leen euh, wax naa dégg maam GMA yi xam nga boobu nag yooyu dañ koy fetal ba pare. Mhm. dox koy boobu daanu jox koy rey. Mhm. ndax soxor gi mu soxor. Mhm. keroog dégg nga. mu ne ma dañ woo naa GMA e bi mu ngi ñëw ma ne ko nag wi tëral nañ ko rendee ci mu ne lan rey leen ko. Mm-hmm. waaye nee naa la keroog dégg maa lu man ñeenti paan xaw ma juróomi paan keroog ci yàpp dégg nga ca la génn. te loolu xoolal Sëñ Saliou Touré dégg maa ñu ko defee keroog bi ñu dikkee ba nga xamee ne dégg nga maa Abdou Aziz dégg nga ñëw na njugub yi nekk dégg maam ci garab gi. gouverneur daal ne kon dégg maa nañ jël fetal ndax ñu naaw maa Abdou ne man mii si. benn bakkan dégg maam duñ ko fi jëlee dégg maam te ma ne fi bu fekkee ne man la rek dégg maam kon kon du ma fi toog mhm. xoolal njugub yi kenn laal leen noonu la doon waxtaane noonu lañ doon def li ñu doon def ba nañ fa jógee dégg nga kon loolu lépp ci jëfi sëñ Saliou Touré ak kóllëreem ak mbooleem ku mu amoon rek dégg maam nitam ku ne man a la jot ma junni nag yu tegal yoo xam ne ñëpp dégg maam seen waajur ñi seen maam ñoo faatu dégg mu jëndal leen ay nag lu ëpp junni ak nangam dégg nga bokkul ak ñi nga xam ne moo leen may soxna tuddal leen seeni doom mooy leen jëndal xaru tabaski moo leen defal lépp man sëñ Saliou Touré dafa ma wax ne Ousseynou ma ne ko Mbàkke mu ne ma ne ko Mbàkke mu ne ma man de su ma sañoon doo jóge sama wet ndax dama laa bëgg a teral barke Cheikhul Khadim wax na ma ko dégg maam hmm. te ak yeneen yoo xam ne dégg maam kon xëy na duñ ko kii waaye daal li ñu mën a wax mooy sëñ Saliou Touré kenn moom. bokkul ak kenn dégg maam. sëñ Saliou Touré dégg maam jàmbaar joo xam ne ji dégg maam ah li ñu ñun ñoo ñàkk ñun waa Thiès. dëgg la wallaay hmm. waaye nag bu ñu dolliwaatee dégg maam ne xel te xam ne sëñ Saliou kon jógu fi kon li mu fi bàyyi dégg nga nañ ci jàpp te nekk ca loolee ñu ko defee dégg maam kon ñoo ngi ci sëñ ba tey. Hmm. kon su ko defee. loolu dégg maa laay dellu siwaat ak Aline rek kon su ko defee dégg xam naa ne la cee des dinañ ko duggal dégg maa ci gàmm gi. waaw ndeysaan jërëjëf ah. ah waaw mel na ni génn ñu sax gàmm. waaw. ndax moom mii moo daan gàmm fii ci Thiès. waaw. gàmm goo xamante ni bii bu ñëwee rek. Mhm. tudd Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam gàmm googu. moo taxit gàmm fay na ko tey. waaw. ndax diggante la mu daan defal sëñ Tuubaa ci safar. waaw. di ko def ci gàmm. Mhm. diggante weeru gàmm. fi muy tàggoot fi muy fi weeru safar di tàggoo weeru mm-hmm. gàmmu ñëw waaw ci la sunu borom ñëw nga xam ni moom li ñuy wax ni waaw sant yàlla jullu ci yonent bi ci diggante boobu ci la <laughs> wallaay la wallaay xëy awal yawman fii rabiul awal waaw mu dem wuji sëñ Tuubaa tey loolu yaakaar naa lu rëy rëy la ah, wallaay dëgg la bàyyi kon dañuy def rek waaw xam naa ne damaa bëggoon rek tuuti de ma maanaam mm-hmm. euh, sëñ sëñ Juga Cissé mu baax ma digganteem ak sëñ Juga Cissé mhm. dégg maam ah waaye digganteem ak Baye Maguette Kandji dégg nga waaw nga xam ne euh, moom dafa nekkoon nit koo xam ne ki dégg maam dafa amoon kóllëre lool dégg nga ñuy ñaan sëñ baar si yàlla na ko fi yàlla yàggal te wér ko waaye lu mu masaan a taxaw rek dégg maam daana si jëw ñëw dégg maam taxaw fa mm. taxawal ko dégg maam moo tax sëñ Njuga Siise ban demee jumaa naan dañ koy taxawal dégg maam ci jaxaaw mu ne leen sëñ Saaliw Ture du fi nekk mukk mooy jiite benn jumaa dégg nga lii la wax kon ñuy siyaare bu baax sëñ Cheikh ali Thioub dégg maam ak mboolem euh, waa Touba Jaxaaw waaye mboolem dégg maam mbokk taal bi yi nga xam ne ak sëñ Kara Koso ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare bàyyi wunu dégg maam waa kër Thierno Alsane Diallo waaye bàyyi wunu dégg maam kenn kenn dégg maam ci koo xam ne kii dégg maam mooy oustaz mbaykan Kane xool dëcc ndaw kere ba mu wàccee liggéey sëñ si Siise daa sëñ sëñ Saliou dafa jógee dégg maam jàkkee murit ñëw fa dégg nga ci Jaxaaw te lu mu doon def da daan dégg rek jikkoom li mu daan topp toppatoo dégg maam néegu yàlla bi dégg nga c'est keroog keroog bi mu ñëwee fukki junni la yëkkati joxe ko. waaw kon su ko defee dégg wax nañu sax dégg maam waxtu moom dañoo nekk ci. Ah, kii ba waaye nag sëñ Aliou kon xanaa rek. Ah, waaw ñu ñu ngi yoon ci gàmmu bàyyi seen. waaw daa mel ni gàmmu gaa rek. waaw ñu bàjj xel. waaw xam ni sëñ Touba dañuy wax ca xas dëgg jës bu ni. waaw gàmmoo ngoog. waaw góor góoru leen te màggal ko. ndax laylatu mawlidi nabi laylatu mahwiri yabi deug la laylatu maxwi bi wa toorisi taasumi waaw gudi la go xamanteni bi xamna ni bu doon waxtu yi dama koy waye rek ngay nga firi ko dëgg la waaw gudi la go xamanteni bi moy mooy guddik feeñu ngën gi mi ndeef deug la waaye moy guddik farsik sikk waaw waaye mooy guddik far coona deug la waaye moy guddi gi nga xam ci lañ laabale woon nga xam dañu bakaru deug la bi hana jaatu wal falah waaw maa suróorin war na jaax waaw bi xëra baaxu wasalaax ma andi faa da xam yi waaw am nag mucc texe mhm. am nag mbégte mhm. fajug aajo waaw bénéfice wu waaw ak mucc waaye guddi la goo xam ne mooy jañ mbugal wallaay dëgg la la goo xam ne xawat xawaari xabadat mhm. ani ruwaati sabatat keroog seen sawara waroon tàkk junni at Moustapha yi dëgg la ngeen gi mi def daa gane àdduna rek sawara wa fay. dëgg la. ndeysaan i waa waa ayni saa mhm. wa tëllati. waa saa da seen dex googee. waaw keroog guddi gàmm. waaw yonent bi daa feeñ rek. mu mu fa mu far. waaw waxoon na biddéew yi. Mhm. seytaan yi daan dem ci kaw. Mhm. ba yonent bi feeñee kenn mënatul dem ci kaw. dëgg la mooy tuuri de fii xa bis nu juum. andi samaawaati andi samaawaati ma faraxante ren bis bi zakka leer nga jolli woon bu ko kenn fàtte de. waaw sa taxa xëy na wuli daa. nee na leer gi jolli na. xayrul bari xayrul baraya ahmada. waaw kooku sa taxa xëy na wuli daa. Mhm. xayru nabiyin xat badaa keroog waaw gën gi yoneen keroog la feeñ nee na salla alayhi man hada yàlla na yàlla doole xéew ci ki nga xam ne yàllaa ko jubal fuhaadoho bil xikami nee na moo xar dënd ba def ca xam-xam xikam nuurun azimun xad yara nee na keroog leer gu màgg jol na bii xusuuru Qaysara nee na jëndee Qaysara 91 kilomètres la waaye dañ doon séenante ndax leerug rasulullahi man kaana fi ummil quran nee na ku nekkoon ci ndey dëkkee rek loo ci wax makkata xayrul xurum nee na màkk mooy gën gi dëkk waaye man ma ne ak Touba waaw in iwaanu kisran sada nee na pays waa Kisra keroog màbb na fiiha wa qablu lu jiitu dafa yëkkati ko woon samkun lahu fartafaa ay téeg yoo xam daa yëkkati ko woon nag nahwa samal mukarram ci wàllu asamaan mi nga xam ne koo teral hatta sariirun kasara nee na keroog lalu buur ba damm na de li ajli haw ni atara ngir tiit ba loola gaar na leen min nuuri afdalil wara ci leeru gën gi mbindeef. rabbi alayhi yàlla na yàlla dooli xéwal ci moom kon. xam naa ne rek de maam bu ñu ko toppee. daf ne tasimoo yan atimoo ala sawi taqaddum nee na màggal yonent bi jar na war na sax ñu jiitu yonent bi. waaye taxsimoo bi sunnati yàquuduna al jannati. Mm-hmm. Mm-hmm. neen ko def ci sunna na la womat ba tàbbal àjjana. kon su ko defee rek tàggoo bu dul tàggoo ngay tàggoo rek. dégg ndax ne wax waaw yow yow <laughs> nga yëkkati xas dañuy tubaarkàlla. waaw waaw waaw waaw mu nga wax tàggatoo bi daal moom waaw comme guddi gii ñu dëgmal. waaw muy guddi ngeen gi mbindeef. waaw guddi koo xam ne boo léegi ku ko def. waaw deesu la xisaab. déedéet guddi koo xam ne ku ko def da ngaa mel ni ku teewee Badar. wallaay ak Xunayn ak Xandax ak. Hmm. xare yooyu. waaw. ah guddi la goo xam ne guddi gu màgg gu màgg màgg la wallaay dëgg la bi daa wax ne daa nii ila ahyaay ja shahri kawnuhu mhm. li xëyri wara zarfan xawaaku la sudadi dëggal tubaarkal gàmmu sax lépp la ñuy màggal tubaarkal bu ko defee ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ko ñaan rek waa aaxiru daawaana an wa rahmatullahi wa barakaatu waa kay kon su ko defee ñëpp ñu seetaan noo leen di siyaare baax a baax dégg maam di leen bégee dégg maam waa France waa Italie waa Espagne waa dégg nga dégg ma ñoo ngi siyaare ñëpp yëpp di leen xamal ne nag gàmm gi incha allah bisimilahi taala dégg nga ah kër ñoom taaw mbay danoon fa ki nga xam ne moo fay gàmmu dégg maam di suñu goro incha allah ñuy ñaan muy ahmad dégg maam na yàlla may ko wér dégg nga su jógee incha allah itamit danañ dem ci kër kan mu njaay dégg maam mi nga xam ne mbay di waaye way juru taaw mbay suñu fa jógee noo ngi dem dégg maam ci cité ouvrière dégg maam suñu doom Ablaye Sow Sow mu àndul ak coow nu gàmm ko dégg nga noonu lañ ko toppee dégg maam ba kër sëñ Abdou Ndiaye dégg mu sëñ Mor Ndiaye daabaay ak ñoom dégg maam guddi gi daal dégg nga buñ ko neenal nañ ci góor góorlu bu baax a baax ndax dégg maam te nu sellal ko fu waay mën a nekk nag dégg nga noo ngi lay siyaare rawatina dégg maam waa Touba dañ koy ñoom ak waa Njaareem ñëpp dañuy màggal guddi gi dégg maam ak waa Njaasaan waa Tiwaawoon dégg nga ñëpp kon yàlla nu yàlla may wér ak kàttan incha allah dinañ jël si waat dégg nga balaa gàmm gee ñëw dégg nga nu àndaat ak yéen waaye ñoo ngi sant bu baax suñu Alioune mbay ci xam-xam bi ak waxtaan bi tubaarkala di sant mboolem ñi nga xam ne dégg nga ñoo ngi doon seetaan dégg nga rawatina Pape Doumbia mi borom télé bi ñu ñaan yàlla na yàlla gën a guddal fanam bi wéral ko yéene bi mu am ci askan wi yàlla na ko yàlla defal koy njottam di wax ne nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa جرجف بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سماد محمد يقول عبد الله وهو أحمد بسم الله الرحمن الرحيم